حفظوا على سيام الله تعالى بركاته sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen ndokkeel baax di leen balaax ñu ngi ñëw fii tey ànd ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Aliou mi nga xam ni moo jiitee ñetti rajo yi ci muy jant bi ak leer gi ak keneer bu Dakar nu ànd ak moom ñëw fii tey di baaxoo leen daan baaxoo def rek di feeñal suñu yéene rek ci liggéey bii ngeen xam ne moom ngeen liggéeyal Seexul Xadim ci barabu tëdd bi ñu ñëwoon doon doon feeñ suñu génn rek di barkeelu comme na naan barkeeloo di xam ne jamono ji moo xat lool waaye suñu yéene nan ma waxee woon daaw rek suñu yéene mooy ànd ak ñett rajo yëpp ñëw fee suñu yéene bu baax a baax waaye jamono ji ni mu xatee ak mbooloo mi ni ni bañee mbooloo moo waral ñun ñu ñëw rek teewal leen fi waaye ànd ak yéen yéen ci yàlla ñu ñëwoon doon barkeelu rek ci suukar si ak ceeb bi ngeen ngeen defal na ko ci liggéey bi nga xam ne moom ngi liggéey Sëñ Tuubaa muy liggéey boo xam ne ma koy xoon ko ci émission ba rek liggéey la boo na ndax liggéey indi ko ci jumaay Seexul Xadiim sa war ngaa a baax naa tal baax a baax xam naa kàddu yi du mën a gudd ndax xam naa kàddu yi kilifa fi rek du mën a guddal kàddu yi waaye kàddu yi ñuy sant rek di gërëm baax di ñaan maanaam mboolem li ñu ci des seen yàq suñu borom gërëm ko Sëñ Tuubaa gërëm ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala julli ci yonent bi Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sant kilifa gi tëdd fii di suñu yaakaar tey ëllëg di Cheikhul Khadim te daayira bi nga xam ne ñoo fi nekk ci wetam dëkkaaleeg moom di saytu mbiri jumaa ji di Muxaddamatul Xidma eh, di liggéey liggéey bu sell boo xam ne yaakaar naa ne bépp daayira buy liggéey eh, war na leen a bàyyi xel ci seenu rafetal seenu sellal seen organisation ak seen dëpp ci ndigal te lépp lu ñuy def mu dëpp ci ndigalal sëriñ si fi jaar te nekkal fi nekkoon xadima rasul te nekkal fi sëriñ Touba ba tey ji ñu àgg ci Cheikh Mamadou Muntaxa yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko euh, ni ko sëñ Baara Bousso Baye Fall waxee ak euh, ahlu jant bi ñii ma àndal danoo amoon yéene euh, réseau triangulaire de lumière muy DTL muy daara ji tool bi liggéey bi nga xam ne jant bi moo ne Touba cañeer ji nekk Dakar leer ga nekk Louga am foofa euh, ahlu ahlu jant bi nekk fii asaabu cañeer nekk Dakar astixaaw leer gi nekk luga ñu yóbbaale leen ànd ak ñoom danoo façon na nag ànd ak ñoom waaye lii xew ci jamono xat-xat yi ba ñépp di ko moytu te ngeen jàngal ñu baree bari nu ñuy fonke euh, jumaa jàngal ñu bëree bëri ñu toppee suñu borom tabaraka wa taala jàngal ñu bëree bëri farata yi ak sunna yi ñu koy jànge fii di ko déglu waxtu wu ne e, ci borom yi xam-xam yu fi jaar kon yaakaar naa ne lépp lu waay def ci lu mel noonu rek yéen la dimbali kon loolu moo tax ñu topp ndigal yoo yule nga xam ne ndigalal sëñ bi la moytu mbooloo mi jafe ko nañ ko bëgge ak ni ko docteur yi waxee ak ni ko kilifa diine yi santaane ñu koy defee sëñ Muntaxa bëggee ko ni ngeen saytoo ko ni ba mu agsi fii ci saytoo gën gaa rafeti anim anam kon loolu moo tax tey nu teewal fi ñooñu moo tax mbooloo mi ñëwuñu waaw waaye li ñu façon mooy mbooloo mi ànd ñëpp ñëw seen kanam nan ko daan defee euh, kon ñu ñëw barkeeloo lii rek ni ko sëñ Baara waxee euh, bu buñ sañoon nag lépp lu fi war a am nun nooy mën a dajalee suñuy ñaq indi ko fi euh, defaale ko ñépp waaw waaye nag ni ko sëriñ bi bëggee mooy kenn ku ne day indi sa suut mën a barkeelu ci li keneen ñëw barkeelu ci li keneen ñëw barkeelu li loolu mooy sëriñ Touba mooy ak yaatal kon ñoo ngi leen di gën a ñaax di gën a ñaax mbooloom dawaayir yi ñuy roy ci yéen ci doxalin ak sàmm ci ndigal ak tënku ci ndigal loolu am solo la waxtaan yii ngi fi waxtaan it mu fiy jolle mu ngi jàngal addina bi di leen yee di leen yar ñi leen gën a yokk seen xam-xam ndax borom xam-xam yu sell yu jëfe seen xam-xam ñoo fi nekk di fi jaar ngeen mu nekk école bu am solo di lu am solo ci euh, ndonal Seexul Xadim li ngeen koy yaatal ci wàllu gure rajo di ko relayer ba bokk na ci suñuy rajo yooyu ma leen limal nga xam ne ñi leen teewal fii tey di déglukat yi euh, ñoo ñëwoon tey indi seen barkeelu kon nag yàlla nañ ko yàgg def yàlla euh, def sutura fépp te lii nga xam ne mooy mbas mi euh, ñi ngi ñaan ci daraja yi borom jumaa jiinu nekk sunu borom jëlee ko ci àddina bi jëlee ko ci réew mi euh, fu mu eggoon mu jóge fa fu mu eggagul mu bañ faa egg ñi mu daloon ñu wér ñi mu dalagul mu bañ leen a dal bi jaahi sayyidul wujuud ci barke yi ku tedd ki tedd fii di xaadimu rasul kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jëre génn jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëriñ Cheikh ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziyaara bu baax itam te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii ñu nekk ak fukki fan yu barkeel yi nga xam ne ci lañu ñu toll. di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne dara tawu ko mu nangul ñu suñuy koor nangul ñu suñuy jaamu yàlla te jëkkal ñu suñuy rëcc-rëcc te mbas mii nga xam ne moom lañu ñu toll sunu borom génne ko ci àddina bépp ginnaaw loolu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ziyaare bu baax di feddali itam sunu kóllëre ak yow bu baax niñ la ko daan waxee rek noonu lañ koy wax waxee ba léegi yàgg nañoo ràññee lool sab taxawaay ci liggéeyu Serigne Touba bii liggéeyu Serigne Touba yëpp sax waaye nag bii def cee raw bii moom dañoo gis nu la ñore lool yitteele la ko lool ba amul menn at muñ ko mas a defee te du sa jëmm teew na fi sa jëf teew na fi loolu nag yaakaar naa ne ñii topp ci sa ginnaaw ngeen ànd di liggéeyal Serigne Touba loolu la ñu gis ci yow ba tax ñu ànd ak yow moo leen di gën a sawarloo it ci ñuy yëkkati liggéey bu am solo bi di ko fi andi at mu jot kon nag loolu nanga xam ne noonu de gis amut solo waaye gisub Sëñ Touba moom am na solo te Sëñ Touba mu ñu koy gis tey it gëm naa ne nangu na ko ndax pastif bi nga ci àndal ak yéene ji nga ci àndal ak dogu gi nga ci àndal ba at mu jot lu jamono xat xat lu yitte yi bari bari bari bari bari nga dagg say yitte dagg say coono yëpp ñëw toggoo coono yi ngay toggoo ba agsi fii ñëw indi ko loola du lu woyof te it woyofut ci noonu gëm nañ ne it ab soññ la ci noonu ndax liggéey bi niñ koy faral di waxe waxtu woo ci dee nekk di ci yëngu te waxtu jot ngay gis njabootu sëriñ bi ci sawet daf lay gën a soññi bu baax ci liggéey bi kon sa teewaay bii ci sunu kanam ab soññi bu rëy ci noonu ci liggéey bi rawatina nag kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ñuy lay yóbbante nag ak cant ak ay ngërëm ci bokk yi nga xam ne ñoo ànd ak yow ci liggéey bii di njaboot gi nga xam ne wax nga ko léegi ñoo nekk ci ginnaaw ñaari bare bu ñetti bare bu liggéeyukaay yooyu ngay liggéeyal Serigne Touba muy jant bi ak ceeneeram ak leer ak leeram ñetti ñoo ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp muy ci Touba muy ci Ndakaaru muy ci Louga ak feneen fu mu mën a doon ci senegal ñu ngi lay jottali seenu cant jëme ci ñoom di leen ak yëgal ni itam liggéey bi agsi na fii ci jumaa ji nga xam ne moo taxoon ñu di ko laaj sëriñ Cheikh nag moom day koo xam ne moom jumaa ji def koo ñor iteel ko itam mu bàyyi ko xel lool loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko yéen ñëpp itam xam ngeen ko yaakaar naa ne loolu itam euh, nandal na ci ak njabootam ndax sëriñ bi ñu ngi lay seereel ne kenn ci sa njaboot di sëriñ Ahmadou Mbacke sa moom taxaw na taxawaay boo am solo dafa nekkoon ak kenn ci njaboot gi doon jàngandoog moom ndar ginnaaw bi mu génnee itam bi lii xewee muy jokkoog moom ci ay taxawaay yu rafet ba indi na fi ay raxasukaay yu am solo yoo xam ne eh, ay taxawaayam séq ko ak ay bokki taalibe ñoom ko àndal eh, waaye yitte jooju ak farlu googu jàpp nañ ne mi ngi ko jëlee ci yow ndax li ñuy wax naan ngaynde eh, soose kat ca gaynde ga la jóge loolu lañ jàpp ci moom moo tax bu defee yitte ju mel noonu duñu bett ngir ci yow la ko ci la ko nàmpe kon nag boo teewee ci sunu kanam danañu la seeral ni liggéey bi noonu nga koy yittewoo ak ni nga ko fonke sa njaboot itam ñu ngi koy bàyyi xel te ñu ngi ciy taxawee noonu njaboot gii nga àndal ñuy njabootuk roox nga ànd ñoom ci Sëriñ Tuubaa muy ñii teew tey jii noonu ñu koy defee njabootuk deret gi itam ñu ngi jaar ci tànk yooyu di ko ni defee ñu ngi la koy seereel bu baax te xam ne loolu lépp rek day delluwaat rek ci sa ci Serigne Touba ak sa yitte ci liggéey Serigne Touba bi kon nag ñi ngi ñaan sun borom yàggal sa taxawaay lool yokk sag wér yokk sag man gis nañ itam taxawaay bi ngay taxawul lislaam jumaa ju am solo jee nga xam ne taxawal nga ko ci xasul ma ab ak léegi rek bi ñuy waxtaan yaa ngi may wax jumaa ji nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci daaru naim loolu lépp nag wóoyal liggéeyub Serigne Touba waaye wóoyal liggéeyub Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ne tàmbale woon na ko jumaay Touba ji loolu rek nga ci jublu ak nag def sa warugar ci diine en tant que kilifa ak diine loolu nag ginnaaw wet yi wet yi ngi ciy bay yëpp ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg ñu ngi koy banneexoo itam te di ci am mbégte te xam ne képp koo xam ne bokk nga ci Sëriñ Tuubaa bu ñu sañoon ci lu mel noonu rek lañ lay dégg yow nag ñi ngi lay dégg ci liñ la war a dégg yàlla na yàgg lool te ànd ak wér kon daal ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal nga yàgg koo taxawee lool ñu yàgg koo ànd te Sëriñ Tuubaa nangu ko gëm nañ sax ne nangu na ko ndax jàpp nañ ne lu mu nërta nangu xay na du ko jaarale ci seen loxo muy jëm si ci ci ci ci noonu kon lu mu nangu ba noppi la kon yéen ñi ci def jëf na seen xel dal na seen jot rafet te xam ne jëf ci Serigne Touba nangu na ko ndax loxo yi mu jógee ak yi mu jaar ak barabam bii mu jëm si lépp day tegtale nangu na ko ñu ngi nangu googu nag yàlla nañ ci làmb ñun ñëpp làmbaale ci sunuy waajur làmbaale ñu itam boole ku ñu jaboote mbaa koo xam ne ñun ñoo ko jaboote ba addunay tukki wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.